kay <laughs> Asma merci encore une fois euh, di remercier ñëpp mm-hmm. comme tu l'as dit tout à l'heure euh, Euh, profils et carrières. Mm-hmm. Depuis ce matin on ne parle que de communication. Mm -hmm. donc tey ci wàllum communication sax la ñuy wax. Mm-hmm. je suis allée voir mm-hmm. une euh, directrice de communication ba nga xamante ni moom il est très dévoué elle est très dévouée plutôt et très passionnée si li muy def c'est un très bon profil. Mm -hmm. de ce fait euh, je micro pour justement ñi nga xamante ni ils sont en de savoir xam exactement ci euh, fànn ba nga xam ne foofu la ñu bëgg a dem ñu gën leen ko mën a expliquer nañu dem seetaani nga xamante ni moo di Astou Diouf di directrice com euh, communication benn société bu ñuy woowee euh, club des investisseurs au Sénégal nañ ko dem seetaan ñu ñëwaat. Oh, waaw parce que man quand j'ai fini mes études c'était en 2009 euh, yàlla suturaal na ma bi ma amee sama baccalauréat dama dem def directement des études en communication voilà léegi bi ma paree bi ma defee sama master yi ba pare j'ai galéré nag comme tout le monde. j'ai parce que am stage sax dafa jafe woon dafa jafe woon voilà les écoles du commerce booy dugg dañ lay wax de garantir nekk ni waaw bu paree ñu defal la stage et tout donc da ngay fu nekk da ngay déposer fu ne da ngay dem euh, j'ai fait du journalisme mais et, comme aw ma stage je me suis dit te comme yàlla dimbali ma mën naa bind voilà j'ai été fait de la presse écrite def naa aussi rajo euh, dem naa sax ba di liggéey ci benn ONG mais li ma fa doon de n'a rien à voir la communication j'étais superviseur de projet là ba en santé communautaire voilà li mais li ma ci gënoon a neex c'était euh, communication toujours day ñëw parce que j'étais tout le temps en communion avec la population voilà yàlla def nag après j'ai commencé à trouver euh, boulot ma nekk euh, la directrice de la communication de l'agence africaine pour le commerce développement foofu noonu man communication bi. je suis également la directrice de la communication de de nouvelle université qui vient d'ouvrir ses portes hier. La rentrée officielle, c'était hier, Institut africain pour le commerce développement, qui est le bébé de de acd Actuellement, je suis aussi la directrice de la communication et de la formation au niveau du club des investisseurs. Ah, dañoo xam ne dañuy dugg ci communication pour yore baat par exemple yore baatu entreprise c'est bien je le fais. pour def communication juste il faut il faut il faut il faut nga nekk quelqu'un de très dynamique bul nekk tayal yambax de quelqu'un de très très dynamique ku ambitieux aussi. bëgg li ngay def il faut être passionné métier bu ci doon rek boo koy def il faut que que nga nga passionné ci parce que voilà bul wax ne que ni communica ñu bëri nag loolu moo leen di yaakaar parce que dañuy wax ni communication bëri na communication moo fi nekk rek il faut ñu dem def communication mais c'est pas une chose très facile à faire du tout il faut nga nga nekk nit koo xam ne danga koy dund pour soog ci mën a mën a dem mais boo demee nii nii rek pour def ko nii échec bientôt ñaanalu ma ko kenn l' <laughs> échec doit ouvrir ses portes et bu boobaa du du du doon lu la neex. gis naa Asma. Mhm. c'est une personne comme ni ko Pa Assane waxee léegi nii très talentueuse. et très passionnée si li muy def ba tax na elle a cumulé beaucoup de fonctions mais fonctions yu ba tey. Mhm. si communication la yam mm. donc et est elle directrice de communication dans différentes entreprises notamment euh, on est revenu un tout petit peu là-dessus pour savoir exactement l'importance d'investir ici au Sénégal ba tax ñoom ñu former seen club bi nañ mm. seetaan tuuti ñëwaat doomu sénégalais kese kese kese ñoo ci nekk amul benn kay koo nañ la c'est pas parce que euh, affaire de de de kii du sénégalais kii du la mais non non parce que un secteur privé fort boo ko bëggee il faut doomu sénégalais ci boppam moo ci nekk moo ci liggéey ñu ciy def li ñuy bay dundee en fait lay doon bay dundee lay doon li ngay def ci sa dëkk mu revenir la au lieu que nga bàyyi koo xamante ni dafa jóge ci àll bu ñëw di investir au Sénégal su paree yóbbaale li mu li mu indi woon Euh, c'est vrai que dina développer Sénégal mais développement pur et dur buñ koy wax kii doomu sénégalais bi nga xamante ni moom moo fi dëkk am fi ay teraangam investir fi liggéey fi bàyyi ko fii ci Sénégal doomu Sénégal yi di ci jëfandikoo di ci jariñu euh, ñun loolu lañu ñu gën a soxla club des investisseurs foofu lay doxee waaw pas trop de de de, de charge jusque boo ñëwee au niveau du club boo ñëwee dinañ la orienter wax la exactement nan ngay def ba nga ba nga bokk ci. doomu sénégalais kese kese kese ñoo ci nekk amul yaa Yacine déglu nañ ko c'est très important mais damay bëgg nga ñëwaat ak ñun rek ci lan moo wor ci jàng euh, ci diplôme. Euh, ci expérience à mm-hmm. ñaata mm-hmm. année lañ koy mën a tàmbalee foofu pour mën a aspirer à être directrice de de de communication. alors Asma d'abord pour euh, commencer il faut savoir que une directrice euh, de communication moom day nekk une personne en haute responsabilité day nekk en charge de l'image de de l'entreprise. nga nga ñëw ak ñun ci kàllaamay coach bi comme ça ñi ñi gën a mën a xam. Eh, eh, tubaab ba nee na ma naa ñëw ak kàllaama. dispensaire la ma jaaxal bi. <laughs> dispensaire yi xas hôpital di ngeen ma directeur directrice en communication donc day représenter l'entreprise même à l'extérieur mhm. euh, de de bi donc ce qui fait que moom en général moom mooy interlocuteur au direct de la presse mhm. les agents euh, de communication xam naa fi kenn nag nga xamante ni il est très fort en communication mhm. mais comme nee na bu ma ko wax je vais pas le dire mais ah, war ngeen ko xam ma wax ma ne xaw ma kan la mais nee na saa suñu biir la nekk ci mi ngi noonu te mooy góor bi fii te du jigéen te fii toog je lui fais sa promotion en même temps donc notamment euh, les conférences de presse moom en général moom mooy dem euh, moom la ñuy jox euh, micro bi moom mm-hmm. mooy wax la nga xamante ni euh, moom la war a témoigner en tout cas pour entreprise bi ak d'autres manifestations diverses on l'appelle ci beneen tamit responsable en communication d'accord euh, pourquoi euh, li ma doon laaj sànq nii travailler en tant que directeur de la communication en tout cas pour ñi nga xamante ni ñoo gën a high level ñoom c'est une fonction dynamique et proréactive stimulante stimulante pour les esprits pour les mois il s'agit d'un emploi senior donc il faut au moins que nga am minimum dix ans d'expérience mhm. senior mooy maanaam nga am foo mhm. toll ci xam-xam xam-xam voilà ci mhm. di toog soog a door ci biir xam-xam bëgg ci euh, yegg ci euh, profession boobu noonu il faut au moins nga am dix ans minimum requis c'est important mu munu acquérir ci yenn poste yi te amuloo expérience ñu li ñëw di toog di def fii nii naam jàng nañ ko de waaye am nañ si tuuti expérience tamit de mm-hmm. Mm-hmm. loo jàngul lu ne doo ko tari mm-hmm. du dëgg ma nga noonu vous avez des questions à me poser mesdames messieurs Yacine bu nga ñëwaat tuuti lu euh, directrice de communication ci entreprise ndaxte xam nañ ne am na ci rôle yu am solo yoo xam ne il faut que moom mu mu ci dox ay jéego yu yu am solo pour que entreprise bi mën a jëm ci kanam mooy li ma wax sànq mooy ki nga xamante ni euh, c'est un haut responsable naka moom mooy yore kàddu société gi donc nit la ka nga xamante ni moom la ñu jox poste bu gën a sax favorable mhm. ndax moom la kàddoom di gën a jub li ñuy wax maanaam kàddu bi bu jubee ci moom moom mooy responsable bi bu dëngee tamit mm, ci moom mooy responsable bi mhm. mooy li ñuy wax sànq nii par rapport ak euh, suñu gouvernement bi mhm. Mouhamed nee na que dañu am problème de communication xëy na looloo tax peut-être que le président pour en revenir un tout petit peu affaire euh, coronavirus bi xëy na les gens n'ont pas compris la jaajëfal damay bàyyi rek euh, euh, Binta mu dugg si ma nuyu ko dalal ko ndaxte mi ngi lay xool rek xam naa ni fees na dell ak question <laughs> elle est tellement pertinente Binta nuyu naa la. noo ko naan de noonu. non dama laa xam koy xool rek fi mu nii sama agenda laa yore ndax bu nekk ci yéen rek am na lu may indi loo xamante ne xaw ma ko mhm. damay nekk di noté ba mooy loolu daal. Mhm. Euh, ci noonu lay jaaree Asma di la nuyu di nuyu Paasan di nuyu Roxeya très charmante ce matin. di nuyu la très belle Yacine yow itam. yaa ngi ci baax na macha allah. Ah, ah, ah, bleu bi. waaw bleu bi bleu bi day fay. comme ah. ne woon léegi de dinañ bi day fay prix bu ah, fay na prix macha allah donc <laughs> Yacine li nga indi amatina solo laay wax euh, man nag fi ma bëggoon taxawandi rek mooy qualité ak compétence yi nga xamante ne euh, ki nga chargé de comme bi am na ko ngir ñu mën ko recruter. alors pour euh, que nga xamante ni mooy directeur ou directrice de communication donc il faut que mu nekk mu am une esprit de créativité mm-hmm. et c'est déjà important loolu xam naa ni euh, ki mm-hmm. toog si plateau bi moom war na cee mën a xam dara mm-hmm. ndax euh, ki nga xam ne day bañ a tudd day te tudd nañ ko ba pare donc il que mu am tamit ouverture d'esprit am le sens de l'organisation ce n'est pas à mmh. négliger maîtriser des techniques et outils de communication aussi mooy réseaux sociaux yi euh, communication internationale web 2.0 mais surtout et aussi il mmh. faut que nga dégg beneen langue outre le français mën mmh. na langue